naqar lañu am ndax dañu boom suñu doom mu naqari ñu torop te xale bi nekkoon xale boo xam ne euh, mën nañ ni kenn la ci woon ci doom yi ba tax na metit bi ñu am mënuñu ko boole ak di leen am leen lu ñuy wax ku nangoo liggéey la ku dégg sama ndigal la ku nangoo jaamu yàlla la mm-hmm. amoon naa ci am naa ci moom confiance ba fii may waxee ak yow confiance bi du masa a deñ ci moom man entrepreneur laa damay jël ay travaux yore ay liggéeyu jàmbor yor di yor alalu jàmbor waaye sama bopp sax doyuma ci sama alal moom moo ma gën a doy ci sama alal fépp fu doom doon féete bàyyi Marème féete na ma fu ko raw ba tax na mbir mi amé tamit ak détails yi may dégg ak wax yi may dégg ak yépp euh duma ci mëna tontu ndax xamna xam gu wër xam go xamni jubadi wul bokul fu jubadi té du massa jubadi buma tàggu won tay tukki fu sori ak lu mu sori sori mare njub la xam ci mom te xam naa njub la fay nek bo bo mi ñibisi te mosul genn fi ci sama wet dafa dem école ñewat ci kër gi dal euh man na ni kenn la won ci man ñak sama doom mm-hmm. ba pare di di salite wala may wax wax ñaaw wala may tontonte ay xuloo wala yu deme ko noonu waaye leen daal bëgg naa ko maa ngi koy sàkku euh, la justice soit faite ma sañoon lépp loo xam ne sanction la bu war ci képp ku rey doomu aadama nañ ko def mësuma ko gis ko gis xanaa bi lii amee laa ko gis ñëw bu loolu mosuma ko gis xaw ma ko